go. Yes. Some new We have spare. sëriñ bi kon yii dañ ñoo jot spare. Ah. ñu téye leen su dee am nga comme lu moo wax dëggal la am na ñoo xam ne mun nañoo ñëw demaat. waaw soo ñooñu da ngaa gis ne ñu ees yi mun ne na su ticket yi jeexee ñu jël yi di ci jaay remplacer ñi dem ndi pour keep capacity bi rek nga xam ne li fa war a nekka moom su dee téeméer a juróom fukka la téeméer rek ñun tamit dañoo continuer rek di jaay ndi su ku nit ñibee mun nañoo dugalaat keneen su nit ñibee rek ñuy dugalaat comme nu mu ko waxee loolu tamit baax na ñu amee ñaari set yi yëpp bu nekk ñu amee ko rek hmm. buñ ko jaayu ñu delloowaat la yëpp comme nekkee noonu waaw dañ koo binda si gannaaw comme ni ko defee woon rek mhm. nga xam ne dañoo binda ñaata moo fa nekk mhm. nga xam ne xam nga ko mhm. waaw comme noonu rek bi téeméer a juróom fukka la